juumoon yéen sax suñu paree si yéen dañuy naan dañoo juumoon loolu c'est devenu une chanson c'est les sénégalais mais la seule chose l'importante ni ngeen fëggee woon seen dënn war Sénégal ànd ak seen i nit fëgg seen dënn ne yéen man mën am solution ngeen occuper radio yi occuper télé yi di wax suba ngone goudé bëccëg donc je crois que amna na leneen loo xamante ni moo cëppoon solo man nak waxumako ko légui légui wax nako feug fëgg sa dënn wër Sénégal di wax lu deug dëgg ak say nit yo xamanteni ni duñu wax deug nous avons di wax lu dul dëgg yow nga dàq wax lu dëgg ba sénégalay jox la confirmé ci temps de l'opposition muy kan le docteur Abdourahmane Diouf jiite woon fi lan ministre de l'enseignement supérieur nañ déglu ñu vidéo Abdourahmane Diouf dellu nit di Ousmane Sonko président parti Pastef moom Ousmane Sonko ci boppam nit Ousmane Sonko président parti Pastef moom Ousmane Sonko ci ne wax du kon ful ba ko doon déglu xam nañ ne la muy wax du dëgg journaliste yi mu doon couvrir xam nañ ne la muy wax du dëgg moom ci boppam xam na ne li muy wax du dëgg Ousmane Sonko waxul dëgg te xam na ne waxul dëgg te Ousmane Sonko tooñ nañu te tooñ boobu dañuy exiger des excuses publiques yu jóge ci moom parce que xam na moom ci boppam. kon muy kaddu docteur Abdourahmane l'actuel ministre de l'enseignement supérieur ci régime mu Diomaye Faye ci gouvernement ki nga xamante mom la doon tuddu leg legi nee mom ci bopam xamna ni waxul deug foul bi ko doon seetaan xamna ni mom waxul deug journaliste yi ko doon couvrir xamna ni waxul deug kon togn na len te dañuy exiger ay excuses publiques ndagam Abdourahmane Diouf bi mo meuna a seere ci mom tay Abdourahmane Diouf bi mo meuna a dugg ci gouvernement xamna mi ngi dugg ci gouvernement ki nga xamante waxul deug foul bi koy sétane xamna nañu waxul deug journaliste koy couvrir xam nañu waxul dëgg sa même Abdourahmane Diouf démb moo toog TFM di défendre ki nga xamante ni moom nee na kooku waxul dëgg ñi koy seetaan xam nañu waxul dëgg journaliste yi koy couvrir waxuñu dëgg tey kan mooy wax dëgg ci ñoom ñaar question bi ma lay posé la en tout cas Sénégal du lii la mérité woon on est passé par Senghor Mamadou Dia Abdou Diouf Habib Thiam Mamadou Lamine Loum en passant par Ablaye Wade Idrissa Seck Mame Boy Boye ba tey ñëw ci Macky Sall avec euh, feu

international je crois que le Sénégal ne mérite pas ça dama bëgg ñu cette année vidéo panafricaine bi cadre yu mu yëkkati di ko ci chef du gouvernement boo casquette de la du Sénégal la sol nañ déglu ci vidéo bi daal soit Ousmane Sonko c'est un hypocrite c'est un homme dangereux c'est un homme politique de peu de valeur voilà c'est un minable c'est un minable parce que le Sénégal mérite mieux le Sénégal mérite mieux donc, voyez, les amis, il y a, c'est dit que Ousmane Sonko doit arrêter cette hypocrisie. Plus il fait ça, plus il devient ridicule. C'est-à-dire que c'est l'homme politique sénégalais le plus ridicule que je n'ai jamais connu. Ousmane Sonko n'a aucune dignité. Et c'est lui qui est en train de détruire le palmarès loolu muy kàddu yoo xamante ni mën naa ko jàppee insulte bi parce que moom tey suñ ko waxee kàddu yi dañuy ni ko dañ ko wax en tant que chef du gouvernement de la République du Sénégal ça engage tous les Sénégalais tey suñ ko ko en tant que chef de parti damay jàpp ni que ay militants la engagé mais tey Sénégalais yëpp lañu wax man li ma ci retenir mooy c'est un homme dangereux mu tegaat ci lan hypocrite le Sénégal ne mérite pas ça l'homme le plus ridicule de la politique mom ko xamé ci mom alors que le Sénégal ne mérite pas ça est-ce que tay ñu nek ci sous-région bi yeewoo ñu Sénégal xam politique xam nu muy doxé ñoo mën a am perception bi à plus forte raison que nous les Sénégalais qui vivons la situation ak mom tous les jours fan la ñu nek qu'est-ce qui nous prend nous les Sénégalais où sont les intellectuels où est la société civile tay mom que gis nañu Alioune mi ngi def liggéey bu am solo Birahim Seck Forum Civil mi ngi def liggéey bu am solo xamuñu nag lu am na vidéo nag boo xamante ni benn audio mu ngi circulé jëmale ko ci problème mu Déthié Fall ak kii di leaderu parti Pastef lan mooy seen problème nee nañ ko si Mollah Morgan audio bi dafa jógee.